dañoo tàmbali euh, dem di saytu li nga xam ne moom mooy barab yi nga xam ne ragal nañ ko torop ci mbënd mi at mi di ñëw ba pare di saytu liggéey bi nga xam ne service yi commencé nañu di ko def bi ñu defee loolu ñu xayma ne ren ji li nga xam ne moom la ANACIM mi nga xam ne moom mooy saytu jaww ji taw bi nan lay demee ren wax mooy euh, taw bi dana teel a ñëw te tamit dana nekk taw bu bari loolu la prévision météorologique yi jox te loolu gis nañ ci déjà lenn loo xam ne lii teg nañ ci suñu bët mooy bërki démb tey bañ a seen taw bu njëkk ci mois de mai mu am cent vingt sept millimètres loolu mën nañu wax ne guléet la mois de mai ñu am taw bu toll noonu ah fii nag ci dakaar dañoo tànnoon yenn bërëb yoo xam ne yii gis nañ ne mooy nekk bërëb yi gën a tar euh, nemmeeku bi ñu koy def ci ñaari fan muy tey altine ak alxames tamit dañ koy commencé waat euh, tey jii département Tëngéej la ñu dem département Pikine ak département géejaway fi nga xam ne dem nañ fa fu nekk gis nañu li ñu fa ragal dogal nañu tamit ay dogal yoo xam ne yii mooy lu jàmp lu ñu war a def fekk nawet bi fekk taw bi di commencé fii Dakar euh, yeneen yi nga xam ne nag mooy liggéey yoo xam ne yii yu gën a am solo la yoo xam ne yii danañ ko def su ma ci tànnee site Oasis te mu nekk fële ci Sangalkam gis nañu fa. fi nga xamné daw préfet bi mom la defoon benn canal pour ndox mi di dem Lac Rose canal bobu wax nañu ñu étudier pour defaat ko bassin bi nga xamné ne nañ fa daw mais def ko ci suufu nit suufu jambour wax nañu gouverneur ak préfet bi ñu ñaan jambour bobu mu mayat ñu ñu gas foofu bassin pour def ko lool dañ ko saafara suñu jëlé fi nga xam ne moom moo euh, euh këri souf fële ci ci ci Bambilor aussi biñ fa démé gis nañ né yoonu ndox bi ay kër ño fa nek amna kër yo xamné yi bouché nañu yoonu ndox donc mu am safara bo xamné bi du nek safara bu jamp ci nawet bi parce que kër yoyu kenn mënu len fa jëlé feeg muy taw def nañu donc ak sa brigade nationale sapeur pompier système bu ñuy pomper ndox mi pour yóbbu ko ci benn bassin bo xamné bi ministère eau dana ko tabax maire bi jël na engagement né mom dana ko clôturer diko ko gardienner parce que suko ko xalé yi xëj mëna ñi dem ci bassin bi donc après dem nañu ci euh, route nationale bi en face Patisen fofu xam ngeen na daw route nationale bi dafa euh daggoon route mi ngi fay def ben liguey ben canalu 1 km 200 1200 mille mètres ba paré mu jallalé canal bi ci suuf route nationale bi pour mu dem rejoindre canal bi nga xamné mo nek ci zone franche industrielle franchissement bi route nationale bi def nako ba paré ñi ngi liggéey canal bi su paré canal bobu su paré moy permettre APIX ak ONAS liggéey bu ñuy def di jël ndox mi ci forêt de mbaw diko indi fofu amna fa ay galancor parce que wax nañu né yoonu ndox mi amna ño xamné ñi dañ ko occuper de façon irrégulière préfet bi dana leen wax pour ñu joggé fa bi fa dem nañu kilomètre en face Nestlé fofu tamit defe nous ne ñëpp nañu seen mi ngi fay def ci mi ngi fay def dana ay ay ay canalisation la ñom ak Ageroute ñoo liggéey loolu ñu ngi suñu donc pour wax ne amul réew ci bi wax né ba faw Il du fa am inondation du fa li nga xam ne moom la ñuy liggéey su fekkee ne taw bi nekk na taw yu digg doom danañ ko mën a dékku waaye nag su fekkee ne dafa nekk ay taw exceptionnel comme ay yenn pays su ci amee su boobaa tamit nguur gi dana nekk ci euh, gouvernement bi dana nekk ci wetu population bi pour saafara loolu comme niñ ko defee démb tey bañ a seen euh, euh, ñi ngi liggéey daal xayma bi du tey la yem alxames bii di ñëw dañu ko continuer parce que sites di ñu war a xool dafa bari ci la ñuy dem Kër Massar alxames bii di ñëw pour li ñu war a def yëpp daal ñu def ko fu nekk ñu ngi waxtaan ak techniciens yi ñu ne ñu lii la ñu mën a def pour saafara ndëgëndiku lii la ñu mën a def pour saafara ko euh, ba faawu ci mesure structurelle ci loolu la ñu nekk kon ci loolu la ñuy liggéey.